structure euh, magique pixel bi kii wutul euh, demee demeetul woon comme ni ma waroon demee parce que bon mm-hmm. y a pour plusieurs raisons alors donc man ma buggoon euh, ma commencé nekk un acteur de l'audiovisuel di liggéey individuellement di commencé di réaliser ay clip di réaliser ay films institutionnels et cetera et cetera ba ma buggoon yokk sama xam-xam mm-hmm. man buggoon ma mën ne léegi xaar ma dem seeti waa RTS sama papa nag yëgu ko woon mm-hmm. parce que moom euh, il n'a jamais voulu que je travaille enfin j'aille j'aille à la RTS <laughs> naturellement donc euh, mu ne ma mu ne ma bon cherche autre chose à faire mais bon voilà mais bon ma jaar ci suuf dem mhm. seeti suñu benn papa bu tudd Mamadou Ball à l'époque c'était lui le directeur de la télé mhm. ma ne ko bon je ne veux pas venir pour pour être embauché à la RTS je veux juste approfondir mes connaissances ñëw jàng pour def stage RTS ko parce que stage quoi qu'on dise RTS. Mhm. Euh, képp ku fi euh, yëngu ci wàllu audiovisuel. RTS ko on dit c'est la maison mère. Mm donc moom moo jur bépp chaine de télé bu nekk. Euh, Sénégal et puis moo jur aussi bépp technicien. Mm -hmm. tout est de la RTS. donc y' yàpp y' avait pas meilleur endroit pour moi d'apprendre mm -hmm. donc ma bëggoon xóotal sama xam-xam ma ne man man ñaan ko pour def stage mu accepté ma déposé sama stage mu accepté ko. mais bon man ne ko nag mais na ma dimbali rek. bu ko mm. paa bi bu ko xam quoi voilà mm. bu ko paa bi yëg. mu ne ma ok d' mais bon ñu dawal un mois deux mois trois mois mu woo ma mu ne ma écoute ton papa c' est mon ami je ne peux pas. Mm. Euh, avoir son fils ici. Ouais. le sache. donc je vais être obligé de lui dire ah, boo ko ko waxee man ak dinañ am problème mu ne ma non non non ne t'inquiète pas et tout donc il a été il toog na deux mois xaw ma trois mois yi mu waxul ak man. ah bon si parce que bon waajur bu nekk il avait il avait pour moi il avait mm. des projets plus ambitieux pour moi xam nga nit ku nekk li nga bëggal sa doom yow rek yaa ko xam mais bon mm. peut-être sa doom aussi mën na ko bañ a comprendre mm. man j'avais ma vision j'avais euh, mes ambitions yoo xamante ni moom laa bëggoon topp donc voilà noonu la demee ba yàlla def deux 2007 ma intégré RTS nekk fa nekk fa nekk fa ba 2013. Mm-hmm. ci lañ may doog a embauché officiellement avec l'avènement de Racine Talla bi mu donc defe naa février xaw ma mars 2013. Mhm. Euh, lañ ma embauché boobu ba léegi maa ngi foofu noonu quoi mais boo xoolee le nombre d'années yi nga xamante ni def naa ko RTS. Mhm. Euh, war na avoisiner euh, les quinze années ou mhm. plus. mais bon parallèlement aussi je faisais de l'animation foofu noonu. avec Guinches. Guinches ah. maa ngi koy nuyu au passage sama frère. d'une émission hip hop qui s'appelait Hip Hop Selecta. qui avait beaucoup plu aussi. et puis. Euh, mais lu tax Guinchess bi mu demee États-Unis lu tax yow continuer woo ko. parce que c'était pas en fait man émission boobu bi ma ciy dugg c'était pour le fun. Mhm. je m'amusais et euh, loolu Guinchess waxtaan nañ ci sax ma ne ko mhm. écoute Guinchess yaay porté émission yi parce que man man xaw ma hip hop. Euh, aw ci culture yow am nga ci mhm. culture bu baax man aw ma ci culture bu mag. dinaa topp sa ginnaaw. yow nga porté affaire bi. et puis bon man j'avais mes activités parallèles aussi. quoi parce que j'étais voilà maa ngi woon ak sama sama entreprise di di doxal quoi. donc j'avais pas forcément toujours le temps ouais. de venir euh, de venir euh, faire l'émission et en plus de ça il y avait aussi mon travail à la RTS à mhm. côté xam nga euh, en tant que monteur donc mhm. loolu noonu yëpp boo ko naroon boole pour nga nekk constamment ci émission bi dafa doon dafa doon dafa doon compliqué bon lui c'était un peu le pigeon voyageur mmh. c'est lui qui partait un peu à, travers mmh. le monde xam nga c'était c'était c'était pas mal c'était bien mhm. c'était bien c'est dommage que affaire bi affaire bi kii affaire bi mais bon <laughs> waaw voilà mais bon après euh, voilà on a parallèlement ma teg benn structure avec mes mes mes frères mhm. qui s'appelle Iris Audiovisuel mhm. maa leen di nuyu au passage et euh, et donc voilà depuis euh, depuis on est là quoi ça fait une quinzaine d'années depuis 2010 aussi bi ñu tegee structure boobu noonu ñu ngi ci ñu ngi ciy yëngu bu baax a baax quoi donc voilà Mm-hmm. <laughs> macha allah pour euh, nit ñi euh, je que nit ñi comprendre nañu un peu euh, alors léegi bu ñu ñëwee nekk ci liggéey bi je pense que 2013 la n'est-ce pas. 2013 2013 nañu la embauché commencé di fa liggéey. Mm-hmm. jafe-jafe yi sa diggante ak sa njaatige Racine Talla kañ la door. alors sama diggante ak Racine Talla. Mm-hmm. Mm, suñu jafe-jafe mu ngi door le premier juin. bi ñu condamné Ousmane Sonko. Euh, j'avais fait un post Facebook. boo xoolee mhm. normalement. Mhm. Euh, mu ngi ci euh, mu ngi ci sama sama sama page Facebook. sama page Facebook compte Facebook quoi. Mhm. alors donc j'avais fait un post Facebook pour un peu soutenir Ousmane Sonko parce que je j'ai estimé qu'il y avait énormément d'injustice on lui a fait subir énormément d'injustice et pour man. doomu aadama gor. quelque soit ton rang social ta position sociale ou euh, euh, tes conditions mm -hmm. tes bu dee am nga ngor bu nekk ci yow ngay gis injustice ñu koy ñu koy ñu koy euh, pratique ci ci ci askan mhm. wala ci nit war nga mën a indigné wu mhm. indignation nag bëri na ay façon am na ñoo xamante ni mhm. dañuy dem taxaw ci mbedd taxaw yuuxu indi ñëw ba ñëpp dégg leen s'il faut euh, si faut pour ñu pour ñu dégg leen s'il faut sànni xeer ni sànni xeer si faut et cetera et cetera ñooñu c'est leur façon à eux de s'indigner am na ñoo xamante ne mënuñu def loolu mm-hmm. ils ne peuvent pas ouais. pour plusieurs raisons mm-hmm. ñii peut-être seen famille duñ leen bàyyi ñu dem ñii peut-être dañuy sóoraale seen pa waajur bu feebar wala et cetera et cetera mm. donc j'estime que war nañu mën a indi ñëw mm-hmm. par je sais pas. ni texte voilà écrit fait. manifester ko manifester sa indignation. Mm-hmm. non pas physiquement mais mën nga voilà mun nga mën nga mën nga mm-hmm. ko bind wala affaire bind sa sa li nga loolu sax boo ko mënul. Mm-hmm. mën nga indigné wu dans ton cœur. donc indignation dafa war gor bu nekk. bu fekkente ni tu es un adepte de la de la de la de la justice. alors man ma constaté. injustice bi nga xamante ni Ousmane Sonko je suis pas un militant de Pastef je suis un sympathisant de Ousmane Sonko depuis le début euh, ñëpp xamee nañu ko même à la mm. RTS à la dans la rédaction dañu mm. léeg-léeg dañuy foo en tout en toute démocratie ah dañuy waxtaan mm. RTS li fa ñi fa maanaam li fa nekk ci ay partisan Ousmane Sonko moo ëpp lif ci ci ci ci ci ci moo ëpp. ah bon oui, ci biir en fait. mais bien sûr c'est des selon une une ligne éditoriale mhm. donc <laughs> tu n'as pas le choix tu tu es de voilà c'est ton gagne-pain donc ki la ne kaay liggéeyal ma nga ñëw liggéeyal ko moom moo mhm. lay wax nii laa bëggee mhm. liggéey bi dem donc donc de c'est la c'est de la maison qui voilà qui qui tout le monde dans cette politique là donc peut-être bu nit ñi bu ñu gisee programme RTS yi et cetera loolu daf leen di daf leen di daf leen di daf leen di énervé parce que justement c'est une télé partisane mm-hmm. noonu la ko perception boobu noonu la nit ñi am ci ci ci mm-hmm. RTS donc forcément mm-hmm. ku ci bokkul sax mën nañ la ci boole mais RTS bëri na des des yoo xamante des partisans de Ousmane Sonko des gens yoo xamante ni bëgguñu injustice ñoo xamante ni dañuy xeex injustice voilà à l'instant mais dañu ne liggéey moo ah, liggéey bi ni ñu ko. mais liggéey moo leen ko tabaxee moo leen tënk voilà liggéey moo leen di tënk malheureusement ce que c'est devenu. Euh, mm-hmm. voilà dafa ëpp loxo daal dafa ëpp loxo. ëpp na quoi parce que quand on parle de télévision publique quand même. service publique loolu sa doit être ça doit war na am benn impact. Mm-hmm. au niveau euh, mm-hmm. des foyers nit ñi consommateurs yi war nañu mën a gis seen bopp ci ci chaîne bi quoi. ci mais bu ñu demee ba nit ñi duñ seetaan RTS wala duñu kii. ça ça peut se comprendre parce que mmh. voilà gisatuñu ci maintenant après aussi mën nga mën nga comprendre politique kër parce que justement ils ont une ligne éditoriale ils sont là pour l'État mm-hmm. xam nga et euh, on espère que y aura des améliorations euh, la nouvelle équipe qui va arriver et que Euh, les couches sociales pourront se retrouver à travers les mm. programmes de la RTS. d'accord euh, loolu dinañ ci dinañ ci ñëw am na sûrement mooy nekk daaneelu waxtaan bi. Mm-hmm. mais balaa ñu loolu euh, li nga posté par exemple boo ko doon tënk ci olof. pour mu mm-hmm. nit yi mm-hmm. comprendre lan ak lan nga ci wax exemple. alors je je voilà. nga peut mooy. mais da nga naxaloo moom laa doon jéem a. waaw a indiwaat li ma bëggoon li ma wax ci ci texte bi. en gros c'est pas bon je ne sais pas si exactement mes souvenirs sont ils t'ont con ils t'ont sali et ils t'ont lavé à grande eau maanaam tilimal nañ la yàq nañ sa der. Mhm. ba pare ñoom ñoo dellu si waat ñëwaat sa der. Mhm. te gëm naa ni que yoon wi gudd na bëri na xaaxaam. Mhm. waaye euh, lii lii ñëw. mooy dàq parce que man dama bokk ci ñi gëm ni Ousmane Sonko weesu na nekk président de la république réew. moom dayoom. weesu na nekk président wu réew loolu bi ma koy wax c'était le premier juin bi ñu ko jour bi ñu ko condamné. donc tey jii nii boo xoolee au regard des événements. Ouais, ou, ouais, euh, des élections ouais. présidentielles. histoire histoire dafa ma jox dëgg parce que moom au-delà. Mm-hmm. d'être un candidat à l'élection présidentielle. il a fait mm -hmm. gagner son candidat. avec désintéressement. Mm-hmm. mënoon na force ne man maay bokk. par force man damay nekk. candidat et cetera et cetera mais no il a fait fi de tout ça. Mm-hmm. wan nañu ni que. son combat c'est pas pas un combat de personne c'est un mm-hmm. combat euh, d'idéologie c'est un combat de développement c'est mm-hmm. un combat de euh, prospérité mm-hmm. pour le peuple sénégalais et pour les populations sénégalaises euh, tey jii nii boo gisee mu am consécration bi mu am nii par rapport aux élections présidentielles à travers Bassirou le président Bassirou Diomaye Faye loolu combat boobu mu porté noonu te sénégalais bu ci nekk tey la majo la majorité des sénégalais di si gis seen bopp. Mm-hmm. moo ko moo moo moo ko waral. Mm-hmm. donc. voilà yow en tant que en tant que sénégalais nga gis ni en tant que sénégalais en tant sénégalais qui a parfaitement le droit d'avoir un mm-hmm. penchant sur tel et tel politicien. parce que justement son discours ma moi me sied son discours me parle son discours me correspond. en toute démocratie parce que man j'ai des amis yoo xamante nii ñii ils sont maquis ñii dañu contre Sonko et cetera mais dañu toog di waxtaan en toute démocratie et mm-hmm. ku ci nekk joxe sa opinion et cetera mm-hmm. man pour man Sénégal noonu la war a doxe mm-hmm. malheureusement après avoir émis man sama réflexion boobu noonu sur Facebook euh, une semaine après je reçois un coup de fil du directeur euh, de la télévision euh, Daha Ba Daha Ba mu woo mu ne ma wuy Gabi ma ne ko mu ne ma wuy bon je t'appelle de la part de l'autorité ma ne ko oui quelle autorité mu ne ma Racine Talla ma ne ko oui je suis tout oui je t'écoute mu ne ma wi bon euh, l'autorité demande que tu déposes ta de démission. ah bon waaw. Mhm. mu ne ma l'autorité demande que tu déposes ta lettre de démission ma ne ko euh, pardon mu ne ma non l'autorité demande que tu déposes ta lettre de démission ma ne ko pourquoi. Mhm. mu ne ma ah non toi tu le sais. ma ne ko non je ne sais pa ça je, ne comprends pas. mu ne ma non parce que tu as fait un post sur Ousmane Sonko ma ne ko oui mais où est le rapport. Mm. pourquoi je devrais démissionner parce que j'ai fait un post sur Ousmane Sonko où est le rapport. Mm. mu ne ma non tu sais Gabi tu es dans le service public et cetera et cetera ma ne ko oui je suis dans le service public mais pas au service d'un parti politique. Mm. en dehors de la RTS j'ai mon j'ai mon opinion sociale politique. que je que je que je que que j'ai dont j'ai le droit de faire valoir parfaitement c'est mon droit le plus absolu. maintenant je je voudrais bien comprendre. Mm-hmm. quel est le rapport entre ouais. mon poste et un éventuel, euh, mm -hmm. une éventuelle démission de ma part mu ne ma ah en tout cas moi je t'appelle juste de la part de l'autorité ma ne ko ok je prends acte ne ko je prends acte mm -hmm. bon euh, ñu euh, dawal mes supérieurs hiérarchiques m'ont appelé derrière mhm. ils étaient vraiment désolés affaire bi metti leen trop parce que ñoom seen bopp comprendre ñu attitude boobu noonu quoi donc mhm. euh, ma ne leen non mettez-vous à l'aise moi je vous mets à l'aise euh, je sais désormais de quoi est capable ce monsieur mais c'est pas grave il ne m'ébranle pas et je ne bougerai pas dans Yota ñoom <laughs> ils n'ont qu'à se le tenir pour dit xam nga ñu ne ma bon léegi gëpp ma ne ko ma ne ko léegi man voilà Daha avant de raccrocher il me dit voilà comme mesure disciplinaire tu quittes la rédaction ah bon waaw comme mesure rédaction bi en attendant man je, je à la rédaction ah. du journal c'était la rédaction c'est le centre névralgique de la RTS mmh. parce que c'est euh, l'info euh, est traitée à partir de là-bas et euh, euh, tout ce qui est communiqué venant de la présidence et mm. foofu lay foofu lay jóg donc c'est vraiment le centre mm-hmm. névralgique mooy xoolu xoolu exactement mm-hmm. donc voilà mu ma en attendant comme mesure disciplinaire tu vas quitter la rédaction ma ne ko je prends acte donc bi ma samay supérieur hiérarchique woowee ma ne leen qu'est-ce que je dois faire je j'arrête d'aller au travail à la rédaction wala mu ma non non continue d'aller au travail parce que tu n'as aucune notification administrative mm-hmm. qui qui qui te demande d'arrêter ma ok ma continuer dem ñu mm-hmm. ab sama may liggéey correctement alors euh, ñu dem dem dem ba ci biir j'apprends que Racine Talla dafa mer parce que dañ koy dañ ko wax ni que man maa ngi woon toujours ci rédaction bi mu mer mu ne mais kooku lan lay def foofu noonu dégg naa ba mu saaga saajuli après dégg naa dafa saaga sax saaga mm-hmm. tey ne man lan laay def toujours ci rédaction bi bon xam naa peut-être gars yi ils ont dû euh, trouver la solution une autre solution parce que xam nañ ne que man du ma du sama lettre de démission mm-hmm. ñoom bu ñu bëggee nañ ma licencier yàpp ça me pose aucun le droit du travail lan la wax boo licencier sa benn sa sa mm-hmm. agent à tort ou à raison. Mm-hmm. donc boo licencier nit am na foo war a jaar ak moom. Mm-hmm. mën nañ ma licencier y pas de souci mais ils ne l'ont pas fait et ils que loolu peut-être voilà li ñu bëgg pour m'atteindre duñ ko am. Euh, ñu décider euh, affecté ma. à Saint-Louis. d'accord voilà alors biñ ma jotee samay supérieur hiérarchique une semaine plus tard ñu woo ma ñoom te bon désolé quoi xam nga. ñu ne ma bon euh, Gabi sa gars finalement affecté nañ la Saint-Louis quoi <laughs> ma ne leen Saint-Louis pourquoi faire <laughs> ñu ne ma non bon xaw ma xaw ma xam nga rek ak problème bi et cetera et cetera ma ne d'accord ma ne leen mais vous êtes au courant que Saint-Louis il y a jamais eu de monteur à Saint-Louis. la RTS n'a pas besoin d'un monteur à Saint-Louis d'autant que tous les journalistes ont été formés en montage te ki fa nekk. Mm-hmm. il monte ces éléments et il les envoie. Mm-hmm. ma ne leen donc vous savez très bien que affectation bi nii c'est une affectation euh, abusive c'est une affectation arbitraire ñu ne ma noonu xam nañ lépp ni mu demee bon je vais je vais garder de dire tout ce qu'on s'est dit parce que tam c'est des mm. ñoom tamit boo moytul gars yi mën nañ leen <laughs> mën leen kii mën nañ leen créer quoi c'est pour les protéger ah, ah. alors donc j'ai contesté la lettre j'ai mm. écrit euh, une lettre de contestation j'ai pris un avocat man ma bind ma rédiger une lettre de contestation donc ma envoyé ko sama avocat moom mu intégré ci peut-être des termes mm-hmm. juridiques ma ma ma ma ma déposé ko à la direction générale. Mm-hmm. donc dans la lettre en substance li ma les grandes lignes de la lettre. Mm-hmm. mooy dama dama contester pour euh, affectation. affectation arbitraire menace d'abord menace de la part du directeur de la télé. Dahaba qui m'appelle pour me demander de déposer euh, ma lettre de démission parce que l'autorité lui, lui, aurait demandé de m'appeler. Ça, c'est la, la, première raison. La deuxième raison, affectation arbitraire. Mm-hmm. La troisième raison, euh, l'affectation n'est pas motivée. Ouais. Parce qu'il y a, y a, y a affectation, amul, amul, amul, amul motivation, amul, amul, mm-hmm. amul, euh, même, même nécessité de service, ça, defuñu ko ci. Ah dañ mën rek affect rien demal pour dem quoi demal pour dem. pour dem. donc soriñu daal voilà exactement. Mm. exactement euh, l'autre euh, la quatrième raison c'est que c'est une modification substantielle du contrat de travail. Mm-hmm. parce que justement dans ma dans mon contrat de travail parce que nous n'a pas de contrat de travail à la RTS c'est des décisions d'embauche qu'on a. Mm-hmm. et dans ma décision d'embauche il n'y a pas de clause de mobilité. Mm-hmm. voilà amul amul clause de mobilité et le droit du travail reste intransigeant là-dessus. s'il n'y a pas de clause de mobilité tu ne peux pas affecter cet agent-là sans son approbation. Mm-hmm. À la RTS, j'ai des collègues qui travaillent un peu partout à travers le, le territoire, mais euh, man ragalu ma liggéey liggéey mm-hmm. na fu nekk ci àdduna. fu nekk ci àdduna. partout j'ai fait le tour du monde liggéey naa fu nekk man ma liggéey. Mm-hmm. mais conditions yi ñu bëggoon yi ma bëggoon affecté. moom la contesté par principe. par principe parce que xam naa. motivation bi fu mu jógee parce que mm. justement j'ai fait une publication concernant ouais. Ousmane Sonko Racine Talla n'a pas supporté cela mm. il n'a rien trouvé d'autre de mieux à faire que de me m'affecter à défaut de me licencier donc voilà bi ma ko defee ma déposé leen ko ñu bindaat ma une lettre de mise en demeure mm comme quoi je dois impérativement rejoindre le poste mm si je ne le fais pas D'ailleurs, ils ont dit des contre parce que dans la mhm. lettre de mise en demeure, ils ont dit que toutes les mesures ont été prises pour, pour euh, la ouais. mise en route. La mise en route, c'est l'argent mhm. euh, qui est mis en place pour accompagner euh, Dembi. quoi. Et cette mise en route-là, c'est un acte administratif. Mm -hmm. Jusque-là où je vous parle, mhm. amul ben nit bouma wone ma kay jël si sa mise en route. Ah bon. Ba ni may wax ak yow ni. Donc l'administration a dit des contre-vérités, la direction des ressources humaines. ñoom ñoo def ñoom ñoo ñoom ñoo wax contre vérité yooyu noonu ko donc euh, ñu menacé ma ci biir euh, lettre de mise en demeure comme quoi bu fekkente ne dew ma immédiatement bu dès que je reçois la lettre. Mm-hmm. je dois aller rejoindre mon poste avec effet immédiat su ma ko deful toutes les conséquences en seront tirées. Mm-hmm. faalewu leen sax parce que. Mm-hmm. ñoom xam nañ lépp li ñuy wax noonu teguñu ko ci benn droit ma lépp li may wax dama ko teg ci droit c'est pas des caprices j'ai été porté plainte à l'inspection l'inspection du travail a arbitré. Et euh, malheureusement, ils ont essayé de trouver une solution. Ils m'ont demandé est-ce que je maintenais toujours ma position. Manélène, je maintiens ma posture. Parce que c'est une affectation arbitraire. Nous, mm-hmm. là, ils maintenaient toujours euh, leur posture. parce que pour nécessité de service. Manélène, pourquoi vous ne l'avez pas mentionné dans ma décision mm. d'affectation Bref, l'inspecteur a dit je donc mu defar PV am mu constater une non conciliation par contre il aura dit le droit. Mmh. wax na leen ne leen vous ne pouvez pas affecter un agent. Mmh. Euh, sans son approbation si dans son contrat de travail ou mmh. dans sa décision d'embauche il n'y a pas la clause de mobilité. nekkul ci contrat bi. nekkul ci clause de mobilité bi nekkul ci contrat bi donc man lay neex mu affecté mu ñu affecté ma ou pas. bien que nous sommes là pour le service public, etc. Mmh. Et des agents qui n'ont pas de clause de mobilité dans leur contrat de travail, mmh. ils, ils, répondent à leur affectation. Mmh. Ils rejoignent leur, poste partout à travers le Sénégal. Mm-hmm. Pourquoi pas, pourquoi pas man mm-hmm. gënuma leen. et puis bi moom moo mais en fait. mais fi ñu ma bëggoon jaarale pour taxañ ma. Mm-hmm. man du ma nangu loolu non non. je ne suis pas je suis ni am naa yar. man inspection de travail inspection de travail defal waaw donc du coup dans leur PV. clairement. ils m'ont donné raison. Mm-hmm. donc euh, euh, ñu jox ma jox nañ ma PV bi et cetera et donc là maa ngi woon ci procédure pour porter leen plainte au niveau du tribunal du travail. Mm-hmm. donc euh, je tiens à préciser que man kese nekkuma ci situation bi. Mm-hmm. RTS. am na samay collègues et en plus. des femmes. xam man sax góor laa mën naa débrouiller ay jigéen. jigéen yoo xamante ni elles n'ont rien demandé à part exercer leur profession mm-hmm. en toute légalité Racine Talla parce que ñooñu neexu leen ou bien parce que ñooñu dañoo wax loo xamante ni moom arrangé wul politique am mm-hmm. mu jël sanctionné leen à partir de ce moment ils ont coupé mon salaire man. Mm-hmm. Ouais. depuis depuis le premier juin. depuis juillet depuis le mois de juillet. Mm -hmm. Racine Talla de façon arbitraire. suspendu mon salaire. juillet ba mois bi ñuy wax. ba ba nii may wax ak yow nii depuis le mois de juillet ba nii may wax ak yow ni Racine Talla. non presque ah, presque neuf mois neuf neuf mois voire mois. Ouais. je je suis resté neuf mois sans mmh. je ne sais pas si j'ai le j'ai le droit de du ma du ma tudd sama turu collègue yooyu. noonu ouais. peut-être elles se chargeront mm-hmm. de de de parler pour elles. mais euh, il euh, y deux dames. kenn ki mu ngi Saint-Louis. keneen ki mu ngi fii nii ku ñëpp xam. Mhm. Racine Talla dafa dagg arbitrairement seen salaire mu suspendre seen salaire. ci ay ay. ci ay. ci ay wax sa xalaat en fait. non parce que xam nga gis nga respect doomu à la dignité de de de l'homme la dignité de l'être mhm. c'est elle est te nit doomu aadama lépp lu koy jox dignité salaire ci la bokk. Mhm. salaire ci la bokk. nit ki boo daggee salaire am xamuloo ndax ci la yore woon papam bu doon jalise wala yaayam bu doon jalise xamuloo ci ndax ci la yor scolarité doomam bi mhm. xamuloo ndax ci la doon fayee location bi mhm. xamuloo xamuloo xamuloo donc c'est-à-dire xëy xëy dagg salaire sans pour autant penser aux conséquences mhm. dans le droit du travail dañu ne loolu c'est c'est c'est une exception dagg salaire nit c'est la dernière cest dire mooy li nga xamante ni moom la ñu war a njëkk xalaat après avoir après avoir après avoir vider le dossier. Mhm. après avoir ouais. vidé le dossier dans toutes les voies de recours. Mhm. xam nga jaar tribunal inspection du travail jugement et cetera ba ko condamné c'est-à-dire waruñu sax xalaat. suspendre salaire nit. Mhm. donc Racine Talla a arbitrairement suspendu mon salaire et celui d'autres de mes collègues. donc euh, en tout cas euh, j'espère simplement que. ay eh, régime bu bi opportunité bi ma am nii. Mhm. pour wax ci c'est mhm. la première fois que j'en parle parce que. sollicité ay ay collègues say collègues sollicité nañ ma bu yàgg. Mhm. depuis longtemps pour que ñu waxtaan ci. mais dafa am lu ma ci doon seet. parce que Racine Talla euh, nga baal ma justement foofu laay ñëw. soo nee am loo ci doon seet sama xel peut-être mën na dem ci euh, Malal Talla. Fou Malade en fait. justement est-ce que Fou dañ ci waxtaan ak moom. waxtaan nañ ci. am nañ luñ ci waxtaan man ak moom. parce que balaa ma doon yàgg na euh, période boobu sax d'ailleurs maa ngi koy jaalewaat ci la perdre euh, sëram mm-hmm. euh, woo naa ko ma ne ko je suis très gêné parce que il se passe telle et telle chose à la RTS ak sa frère te am na loo xamante ni man nit laa nite naa aussi te dama la ciy seet et j'ai pas envie de d'intenter quelque action que ce soit avant d'en avoir parlé avec toi. Mm-hmm. il m'a mis à l'aise parce que Malal c'est voilà c'est un grand monsieur quoi. il m'a mis à l'aise du ma wax nag le contenu de notre discussion. Ouais. mais il m'a mis à l'aise mhm. il m'a compris et il m'a mis à l'aise mhm. te loolu wax dëgg yàlla tax na ba sama voilà tax na ba. am na lu bëri même même quand je parle de cette situation. Mhm. je choisis mes mots. parce que justement maa ngi ko ciy sóoraale. pour mu yar ak teggin en exactement. parce que maa ko ciy sóoraale. maa ko ciy sóoraale ba ci Racine Talla nii. bi muy ñëw RTS balaa muy occuper fonction su je fais partie des premières personnes avec qui il a parlé wax ma ne que il comptait sur moi ma ne ko soxlaa lu ñu la dara boo ñëwee dinañ la jàppale ci sa mission bi nii parce que ñun RTS moo ñu ñor et on voudrait que RTS occupé waat rang bi mu bi mu bi mu bi mu yàgg nekk quoi. Mm-hmm. y en expertise baa ngi fi mm. RTS boo fa demee. Mm, mm. chaque agent boo fa jël mën na mën na créer chaîne de télé. mais est euh, nga baal ma Gaby mais est-ce Malal peut-être wax na la ko wala waxula ko jàpp nga ni xëy na tenté na dara médiation entre yow ak moom wala dara. non man.